thank you

donc day di wax investisseurs yi ñi nga xamné ne ñëpp pare nañu pour euh, bëgg vie sur mer manam jàkkaarloo géej am air bu pur manam nekk ci calme donc l'idéal c'est ça donc il y a les habitations il y a l'eau l'électricité donc li leen di inviter c'est un terrain ñu fi ngeen ko terrain mo dem ba borne bële bu ngeen seetloo borne bële su la jaar ni yóbbu fi donc après les opportunités dinañ leen ko won ci yoon bi li ci dess

fii ngeen c'est très calme très calme ngay xam ne kenn du la déranger courant baa ngi nii ngeen di gis xool leen fii dégagement bi xool leen yéen a ngi gis fi. xool leen dëkkuwaay yi c'est très joli peut-être caméraman bi ko wan su ma taxaw ni. vue sur mer là. vous voyez les habitations caméraman waaye c'est wonderful c'est très joli yow boo tegee si suuf direct, rek personne ne te dérange. Donc il y a la tu sous il y a le team Guigui. Hein? Donc vous le voyez, à tout Abdjala. Donc euh, voilà, on continue toujours. Euh, vous allez découvrir les habitations. comme vous le voyez, c'est des mbedd Il y a un lotissement toujours dañuy y am des énorme.

maanaam li muy jënd fan la nekk ak quelles sont les opportunités moo tax ñu bëgg dafa ñu gis ngeen tabax nañu fi lañu nekkoon sax dinañu génnee on a la possibilité aussi de passer par là parce que li doo am benn jeune bon ñax yi ngeen di gis c'est normal au Sénégal quand il y a l'hivernage c'est tout à fait normal ñax yaa ngi commencé boobu actuellement hivernage bu amee da ngeen di gis ne souvent euh, ñax yi day commencé sax verdure bi moo tax da ngay gis ne ki nga xam ne elle n'a pas l'œil bien euh, euh, comment dire bien aiguillé donc dafay wax naan souvent fii dafa sori dafa am ay ñax maanaam way du sori waaw waxtuma la zone yi nga xamné c'est très convoitisé tay yi bu ngeen jëlee Almadies Almadies tolloon na fee xam à l'époque ñun dañ la wax naan dafa sori Almadies mais Almadies actuellement zone bobu manam man dem mun ma fa dëkk pour l'instant peut-être ci kanam <laughs> mais borom barke yi ñoo fay dëkk en général waaw

MTM immobilier vous duggee ci MTM immobilier vous nga que ne maanaam vraiment ñi ngi à 100 donc ñi ko wax ak ñi ko waxul yëpp ñi ñi di ñu en tout cas voilà le site c'est euh, Toubab Dialaw Je di remercier li ci des après dañu la description bi merci.

région de Dakar Manam tey jii boo génnee Rufisque rek automatiquement da ngay jot yenn après Toubab Dialaw donc pooru Ndayan bi mi ngi ci kanam donc li dal moy opportunité yi nga xamné nek na bir Toubab Dialaw soriwul dara tey jii bu doon wut kayit yaa ngi koy wutee euh, bu doon titre foncier wala bay wala nga dugal bay yang ko bëgg a dugalee Rufisque nga koy dugalee donc en tout cas ñi remercier ñepp Thank you.